waaw ñu ngi ñëpp le 3 décembre la waaw di woo ñëpp xam nga feeraay nañ ba mu tudd doom yëpp la dañu woo waa tudd yëpp woo 200 pour cent yi ñëpp waaw ñu ñëw jàpp si combat bu baax a baax a baax moom dina doomu tudd la champion bu baax bu leer la ma lay ñaan yàlla na suñu borom defal ndam yaa ngi wax ko maa ngi ñaan yàlla na suñu borom defal ndam bu baax a baax amal jàmm ren bi gaaw rek daa wóor mon ami aja borom la trois ndam rek incha allah yaa fi ne yaa fi ne yaa wóor mon ami aja borom la trois ndam rek incha allah yaa fi ne. yaa fi ne.